benn korent man ci sama bopp mbokk yi bi ma ñëwee ci yéen ngir yëgle mbooti yàlla ñëw ma ci ay wax yu neex ak xam-xam bu réy dogu woon naa ci bañ a xam dara ci seen biir lu dul Yeesu Kirist te muy ki ñu rey ca bant ba bi ma teewee ci yéen ànd naa ak ñàkk doole ragal ak njàqare li ma wax ak li ma waare defuma ko ci làmmiñ wu neex sukkandikoo ko ci xam-xamu nit waaye ànd na ak ay firnde yu soqi ko ci kàttanu xelum yàlla ngir seen ngëm bañ a wékku ci xam-xamu nit ñi waaye mu wékku ci doole yàlla moona am na xam-xam bu ñu yégal ñi mat xam-xam bu bokkul ci àddina si te njiiti àddina si xamuñu ko ñoom ñi nar a wéy nu ngi yégle mbootu xam-xamu yàlla mu nëbbu woon te yàlla dogal ko ngir sunu ndam laata àddina di sosu kenn ci njiiti àddina amul woon xam-xam boobu suñu ko amoon kon duñu rey boroom ndam li ci bant bi waaye mbind mi nee na li bët gisul nopp dégg ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg fekk nag nun la ko yàlla woon jaarale ko ci xelam xelum yàlla mooy leeral lépp ba ci xalaati yàlla yi gën a xóot kan ci nit ñi moo xam yëfi nit xanaa xelum nit mi nekk ci moom rekk a ko xam noonu it kenn xamul yi yëfi yàlla ku dul xelum yàlla nun nag xel mi nu jot jógewul ci àddina waaye yàlla nu ko sol te loolu nu yàlla may yéglewuñu ko ci ay baat yu soqi ko ci xam-xamu nit waaye nu ngi koy yëgle ci baat yi soqi ko ci xelum yàlla di tekkantal yi fi xelum yàlla ci ay baat yi munu sol nit kese du nangu yi fi xelum yàlla ak ndof lay doon ci moom te du ko mën a nangu ndaxte ku yor xelum yàlla rekk moo ko mën a ràññaale nit ki yor xelum yàlla dafay àtte lépp te moom ci boppam kenn du ko àtte ndaxte mbind mi nee na ana ku xam xalaati borom bi ku ko doon digal waaye nun am nanu xalaatu kirist